Bienvenue sur Salam Vision. ci barkeb sayxi fàddilu mi ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi yàlla dolli noo ay maqaam yàlla tey ki nga xam ne moo di Mama Adama Gueye ñu nar a waxtaan ci cosaan nar waxtaan ci aada mu dalal ñu nag fi nga xam ne moo di màkkaanam di Kër Masaar case ba ba tey du ma faral di ko wax nee naa la introduction dafa am solo te wax naa la ko ci biti cosaanu Africa la émission bi tudd kon typiquement cosaan la li nag euh, suñ ko waxee wax nga gis ko weesuwul cosaan ba tax na kon ka tey moom moo ñu dalal dañ koy nuyu bàyyi kook askan wi yaay booy dañ lay jox micro bi daal lay dalal lool nag. waa waa El Hadj maa ngi lay nuyu di la ziar yaa ki nga àndal ah, di nuyu askanu Sénégal wërngal këpp àdduna wërngal këpp biir réew bitim réew euh, diaspora bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar samay cliente yi nga xam ne dañoo nekk extérieur maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ma mama Adama géey xam naa ne euh, xam nañ ma bu baax sax waaye nag faaw ma daal di leen di yónnee nuyoo waaye di nuy itam ñi nga xam ne dañoo nekk biir biir ci biir réew mi ah di leen ñaanal jàmm bu baax te di leen ziar bu baax a baax kontaan naa ci déplacement bi ngeen déplacé wu euh, pour ñëw seet si ma maa ngi leen di ñaanal jàmm saa su nekk. ñuy faral di ko wax. Mhm. aajo boo gis am na jàppal na jiw. dëgg la te ku wàllu jiw foo nga tudd dëkk. kon nag lii su amee ñun dara ñu ñëw. Mhm. ci yow nga dalal ñu sa makkaan bi nga xam ne fi ngay liggéeyee. Mhm. kër Massar Kaas la. kon leer yoon la. daal di leeral. leeral wi nag uh, mooy kër gi. dama bëgg nga wax askan bi ndax man samay mbir day xaw a tàng tuuti samay émission dama bëgg nga leeral askan bi kan mooy mama Adama Gueye waaw mama Adama Gueye uh, moom daal benn jaam yàlla la Ah, di taalibe sëriñ Fàllu ah, di yëngu ci wàllu seet di yëngu ci wàllu liggéey ah, di dimbali doom aadama yi mama Adama Gueye boobu boobu mama Adama Gueye la boobu genre laa daal yow waaw boobu genre laa damay dimbali doom aadama yi damay ñaan damay seet waa ci laay yëngu waaye nag mu nekk ferte lool ci man mu nekk ferte lool ci man ndax yàlla moom ma ko jagleel te li cëru yàlla kenn du ko bañ cëru yàlla kenn du ko bañ yàlla moo ma tibbale séddema lii ku ci nekk da lay tibbal man lii la ma tibbal damay sant suñu borom di sant Serigne Fallou. nee naa suñu borom lii la ko tibbal kon day sant yàlla sant Serigne Fallou. mais mhm. dama bëgg a xam waa Adama bi seet bi nga wax. Mhm. nga ne ci nga nekk te nag cee dëggal sa bopp ndax tey nag mu amul ragal. Mhm. amul daw pare nga xam ne euh, maanaam question bu nekk dina ñëw dal sa daw. dëgg la maanaam seet bii nga tax. Euh, nga ko. ah dala neex. nga xëy rek jënd say pétard dem euh, peese. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. waaw seet gi man dama ko doon élage ama ah, doomu waalo waalo la waaw ah, doomu waalo waalo la mm-hmm. damaa doon seet gi ci samay maam ah, sama yaay di seet sama yaay bi ma jur da daan seet waaye nanguwu ko woon mbir mi daka daan dikkal mu seetal la bu ko dikkalul da koy daal di bañ ba bi mu génnee àdduna sama rakk bu ma bokkal ndey ak baay moo jël petaaw yi sànni ko te yëpp daa ñëwaat ci man barki barki sëriñ Fallou dafa ñëwaat ci man heure bu ma doxee dajeeg benn heure bu ma dajee doxee dajeeg benn ñu di ma tegtal fu mu nekk ma dem di ko jëli damay ñëw ba benn coin fekk sa benn waaw fekk dama koy gént guddi gi te waaye ni ma koy génte noonu laa koy fekkee mu tegee ci bu leer nañ barkeel laa ji Fallou sama bakkanu njaboot du caaxaan yàlla na jullit yëpp dem àjjana ma dem safara xam nga kon euh, euh, jullit yëpp dem àjjana ma dem safara kon loolu jaraluma ko waaw ci loo xam ne saxul day jeex kon du ko jaral te noonu laa koy gisee wallahi azim te noonu laa koy gisee wal wallahi azim maanaam langue neex. ngay wax lu neex muy tombe. Mm-hmm. maanaam mm-hmm. langue mm-hmm. ataaya kon du ma ko daan faral di ko waxee. ndax Sénégal xam nga daa bëri neex la rek mu say petaaw say xaajate di créé muy tombe. ba nga la. hélas su ma la nee dinaa la yóbbu ci ba ci sama rakku yaay ki topp ci sama yaay mm-hmm. bokk ak moom day baay mm-hmm. day seet day ñaan donn la mm-hmm. donn la sama mag ji ma bokkal ndey ak baay du seet waaye day liggéey donn la sama maam dafa am xam-xam bu boo sax ma ne samay maam samay maam dañu am xam-xam ci côté yaay ci côté papa dañu am xam-xam. waxtaan. Mhm. damay faral di ko wax. Mhm. dañuy waxtaan ci dëgg. Mhm. ndaxte nag dafa nekk loo xam ne du lu mën a démontrer. maanaam du lu ñu loo xam ne. da ngay toog ne lii mooy preuve bi que ni man dama am ay rab. dama am loo xam ne. moo ma ko jox wala dara. donte am nañ ci luñ ci xaw a jàpp nee nga da ngay jéem ci ñu la jox ay tegtal. ngay xool ji ay tegtal nga am ko teg sax Mm-hmm. su la maaraam mm-hmm. la doonu eh, li ma mën a teg ci say loxo mooy donnu la eh, ndax samay maam dañ daan defi ñaan dañ daan faj dañ daan wax muy am ba ci sama maamu yaay wallaahi li azim dañ daan faj dañ daan jóge ba waar kii eh, nu mu tuddati dëkk naar yi Mauritanie dëkk daan ko fekk ba ba waalo di ko seetloo keroog bañ ko seetloo wee ni ko yàlla lañ koy laaj dañu leen yàlla man xaw ma fu mu nekk yéen xamu leen fu mu nekk bu ngeen ko xamoon du ngeen yëg si fii li may seet ñu ne ko ma sekk gay kon yow yaa fi mën yaa mën ci seet yaa mën ci xam-xam fas bi mu indi woon da ko koo bàyyee barke Sëriñ Fall te xam naa ne ku xam samay maam bu déggee ma wax ko incha allahu rabbi dina xam ni la may def foraatuwuma ko foraatuwuma ko ci ci côté papa ci ñaari côté yëpp laa ko waaw ci ñaari côté yëpp laa ko doon nii waaw ci ñaari côté yëpp laa ko doon nii hélas waaw kon la dégg ngeen ko xam-xam bi da koo doon ci côté yaay doon ko ci yi mhm. ah, nga xam ne dañoo nëbbu woon ci xam-xam mhm. waaye nag ah, di vilipande nga xam ne nag ah, mhm. dañ ko def business dañ ko gis ni forox ndoll Mm-hmm. kon nag des fois ñu di leen ciy gëtëm di ciy laaj di mm-hmm. Mm-hmm. loo xam ne day jaar ñu xam ne ñun dëgg la ñu mën ak ñu mënul dëgg la dëgg la na yaay ñu ñëwaat ak yow ci wàllu liggéey bi ba la bàyyi ndax tey bëgg nañ nga leeral tuuti ci côté cee wax euh, ci quelque maam yi pour ñu mën a xam soqee koo bi fan la la bawoo dëgg la loolu dafa sama cosaanu waaju bu góor euh, pay pay xam naa ne képp ku xam pay-pay mhm. ah, boo déggee famille njaayeen bi war a xam fan mooy pay-pay mhm. waa pay-pay mhm. fala sama waajur bu góor génn ganee àdduna foofu la ga waaw waaw yi dañ may sonal bu may def émission waaw téléphone bi moom du noppaliku euh, foofu la sosoo foofu la soqee koo waaw te itam ñu nekk borom xam-xam nekk buur dammel waaw góor lañu am nañu xam-xam nanguñu nañoo liggéey am nañu xaalis waaw loolu moom am na moom barki Serigne Fall su leen euh, uh-huh. du wàllum koom xam fa ma bokk barki Serigne Fallou Mbacke du wàllum koom mm-hmm. am nañu jom mën nañoo liggéey am nañu xaalis waaye nag ku ci nekk ak la la yàlla cërale mm-hmm. man lii la ma yàlla cërale lii la ma yàlla cërale daw ma ci dara daw ma ci dara lii la ma yàlla cërale ku nekk nag ak la la yàlla cëre man dam sama cër man dama koy sante suñu borom waaw dama koy sante suñu borom ndax damaa fekk samay maam tam di ko def waaw damaa fekk samay maam di ko def kon man bu ma ko defee wàcc naa waaw wàcc naa maanaam technique yi quoi. parce que xam nga ay ndaw lañ. te ndaw tamit war na koo jaral muy gëstu. ci mbirum àddunaam rawatina ak fu mu dëkk. xam nga ni continent Afrique lañ nekk. rawatina Sénégal. la te Afrique a toujours seen seen Sénégal bi tamit mu am ci loolu bari ci loolu. kon ñun ñii di ndaw. loolu la tamit ñu leer. ñu ci wàllum ay petaaw ay ci aaju ndax petaaw da ngay seetee wala am nga leneen looy tollee. hélas man petaaw laay seete lu passé petaaw dama seete ndox. du ma seetee ndox du ma seetee carte waaye damay seet jàkkaarloog yow di wax ci yow lu dul deñ li ma ne la doonu la rek xam nga dafa am loo xam ne ci deret la ne te lu nekk ci deret dafa neex a di naqare dindi ci nit man dafa nekk ci sama deret man hélas bu may seet damay mel ko ànd ak àll su may seet damay mel ko ànd ak àll hélas su may jàkkaarloo yow di la seetal nii sans pertaaw damay ànd ak àll barki Serigne Fallou kon loolu deret la ci man day dox xam-xam bi nekk deret ci nit ki day dox ci sangu nit ki man mënuma ma ko raxas mënu ko dindi bu may dikkal mbiru suñu borom la mbiru suñu borom la kon nag dama koy sante suñu borom daal dama koy sante suñu borom déedéet déedéet. parce que nag dëgg la man mi yow <laughs> na dëgg la ah, ku ku ku ku mën laa sax ah. day a la la say maam jox. <laughs> moom nga na kon ah preuve dëgg la dëgg la. dëgg la. Eh, Elage eh, man su ma namm wax dëgg ma ba ko kenn moomu ma ku ma moom yàlla mi ñu sàkk mooma moom su ma namm wax dëgg yow li ngay wax du dëgg dañ la ciy fay duñ la ci fay même bu nekkul dëgg duñ la ci fay bu nekkee dëgg duñ la ci fay waxal dëgg nga am ci yàlla euh, waaw nga am ci yàlla boo waxee dëgg da nga ci am yàlla ndax waaw da nga ciy am yàlla kon ma wax dëgg rek tey te te am ci yàlla waaw. Ah. Mhm. ndaxte nee naa la mbir mi mbirum loo xam ne rek pour wane la ndaxte dañoo toll ci jamono joo xam ne dëkk bi dafa toj lool wax naa ko léegi pëcc foofu bu bëri mhm. ba tax na ñu sax émission yi dañ koy xaw a ragal mhm. eh, pour wane ne Afrique am na toujours ba tey ay réalité moo ñu tax a bi waaye ci kaw réalité boobu tamit nag dañ ciy waxante dëgg moom laa wax

musuma koo nettaliku yàlla di bind ci kaw suuf ku dul sama waajuru góor bi nga xam ne moo ma indi ci àdduna sëriñ fàllu bëgg naa ko mais sëriñ fàllu moo ma bëgg ba feeñu ma sëriñ fàllu moo bëggal boppam ba feeñu ma hélas su ma lay wax fi ma jaar ak sëriñ fàllu danga naan ma déedéet damaa tëdd guddi gént ko <laughs> dama damaa tëdd guddi gént ko bi ma ko géntee mu ànd ak sa Moustapha Bassirou jóge ci kaw asamaan si ndox ndox ñàkk may wërim ndox bi may wëri ndox am benn waaju njool du am jëmm daldi ni ma soxna si foo jëm ma ni ko damay utim ndox ndox da laay wër bi mu ne ma ndox ngay wër ma ni ko ndox laay wër mu ne ma fii de ndoxum sayaan moo fi am waaye ndox mi de kenn mënu koo jëfandikoo waaye de soxna si dawal gaaw balaa mbooloo mi ñëw sëriñ fàlloo ngi noonu di ñëw su ñëwee mu ñaanal la balaa mbooloo mi ñëw ma daal sànni paan bi ma yore woon jël teeñ bi takkee ko sama ndigg fi may daw sëriñ fàllu wàcc ci benn lu mel ne canapé canapé bi am na fu ñuy teg seen tànk bi mu ne cëpp ku ci nekk yaa ngi sol lu weex tàll barki sëriñ Fallou barki yonent yàlla xam ne sama bakkanu njaboot yàlla bu ma fekkee sama njariñu njaboot gi ma daal raam ba ci sëriñ Fàllu mu ñaanal ma fi mbooloo miy ñëw seen seen ba yéegaat ñu mel ni dañ leen di xëcc ci kaw ñuy dem biñ leen di xëcc ci kaw ñuy dem mbooloo mi di ñëw topp sama ginnaaw man fi ma fi ma sikku di raam ma jógaguma waaye mbooloo maa ngi ci sama ginnaaw fi ma nee bëreet jóg ma xool leen gisatuma leen ci kaw asamaan si looloo ma dal sama digganteek sëriñ Fàllu at moomu ma dem màggali ànd ak eh, ku ñuy wax Nogoy Maar ñi même at bi ku ñuy wax Nogoy Maar ñu ànd màggali ndekete kër doomu sëñ Fallou lañ daal muy soxna sëñ Mor Diop Faxa ñu dal këram duma ma ko rusa ndax dama ko leeral ba mu leer ma daal ma daal di jël ndekete musóoram laa jël takkee ko sama bopp soxna saa ngi wër musóor gi ci guddi gi ba bër set gisul musóor gi mu gis ko ci man mu daan ne ma soxna si yaay yoor musóor gi ma ne ko maa yor musóor gi mu daan ne ma waa ma dem di ko dindi di ko ko jox mu ne ma téye ko ba nga noppi ma daal dem xëppoo sama ndox jàpp ba ma paree ma daal di jël musóor gi jox ko bi ma ko nettalee mbir mi ba mu yegg ci biir saal bi boobu ñu ngi waaj pour ñibbisi ma nettali ko mbir mi ba mu yegg mu daal di ma ñaanal ñooñ ci sa ginnaaw. commencé gu ma ko moo tax mbooloo mi ma topp faw mu am sëñ fàlloo ma booleeg mbooloo mi du hasard te gis nga teeñ boobu ma takkee woon sama ndigg moom laa jëli ji woon kër soxna si gis nga waajooju ma seenoon mm-hmm. mu dem a tegtal ni ma sëñ Fallou ngi nii Cheikh Ibra la ndax dama ko wax ay kilifa ñu wax ma ko mm-hmm. jox ma ci tegtal yu leer leer nañ kooku Cheikh Ibra ca kam ma dajeel mu naa ma ndox mi ndox mu sayaan la kenn mënu koo jëfandikoo Cheikh Ibra la daa am kilifa yu ma ko waxal ñu ne ma Cheikh Ibra nga dajeel barki sëriñ Fallou ñu ne ma Cheikh Ibra xaritu sëñ Fallou la daa am kilifa yu ma ko waxal barke Alaaji Fàllu du caaxaan lii bu ma koy wax damay ànd ak àll ah, su ma koy wax damay ànd ak àll gis nga loolu nim ma demee su ma sama àjjana leeroon bu neexee yàlla yàlla rocc sama ruugi tey barke Alaaji Fàllu du caaxaan lu ma la gin ci sëñ Fàllu bu dee musiba la ma lekk ko bu dee musiba la ma def ko barke Alaaji Fàllu man sëñ Fàllu maa ko bëgg mu bëgg ma wan ma boppam boole maa ngi mbooloo sëñ Fàllu damay téye ay million mm-hmm. sëriñ Fàllu la sëñ Fallou damay wax ak moom comme li may waxee ak yow mu fajal ma samay aajo ci saasi barki sëriñ fàllu Mbacke du caaxaan lii may wax su fekkee amul yàlla naa gën a torox ci lu jullit yi barki yonentu yàlla Muhammad sëriñ Fallou dafa daf ma daf ma féete foo xam ne ah yaay jur na ma def na ci man li war a def ci man baay jur na ma def na li mu war a def ci man waaye sëriñ Fallou daf maa bëggal boppam tànn ma tànn ci biir gaay maa defar ba duma faat waxtu. sëñ Fallou daf maa defar ba duma fen hélas li ma lay wax si sëñ Fallou dafa tooyal sama xol sëñ Fallou sëñ Fallou waaw dafay tooyal sama xol waxtaan yi la dinañ waxtaanee ci xam-xam waaye tamit dinañ waxtaan ci ay relation ci ay diggante yu tamit ba tey nag lépp di ci wàllum cosaan ci wàllum Afrique ci wàllum Sénégal bu particulièrement Sénégal bii ñu nekk waaye su loolu jàllee kon leeral la ñu tax maman Adama Gueye di Serigne Fallou bi kon avant maanaam seet bi mu di ko def liggéey la mu wanal la ko ay yooloo yaakaar naa li may wax rek wax su ko fee noppi ko jóg wala ñor waaye noppi su nga wax su boo koy koy dégg defe naa ne day wër pénga nga xam ne yaay bu kontaan nañu loolu waaye dañu puusandiwaat rek ci biir waxtaan bi ndax li may wax rek man sama émission day xaw a tàng ndaxte nag dëgg rek laa bëgg mu jib ndaxte lii dafa nekk loo xam ne dafa bëri pëccoxoo kon nag lépp loo ci wax rek war na doon loo xam ne leer na doon lu leer nañ maa tax na yaay bu nañu ñëwaat tamit nag ci wàllu fekk ndaxte kon ka wax nañ ci wàllu gisaana bi ba mu leer nañ nga daan ñu faram fàccee sa digg waxu mm-hmm. leer mm-hmm. mm-hmm. euh, waaw waaw damay faj damay faj ci côté yu bari sax aw ma xam-xam nag waaye damay gëstu aw ma xam-xam waaye damay gëstu te liñ ma fi bàyyee maa ngi ciy liggéey maa ngi sant yàlla dama ci sant yàlla bu baax te eh, yow gis nga ni may liggéeyee waaw gis nga ni may liggéeyee damay liggéey ci wàllu sunguf damay liggéey ci wàllu alxuraan damay liggéey ci wàllu reen damay liggéey ci wàllu fas fas bi nag moom waaw fas bi moom moo gën a jooni jooni moom sëy daan yàlla dogal sa diggante sëy da ngay gis suñu demee sëy ñu benn ak ñaari ak ñett ak incompatibilité dina day am seen diggante maanaam ñàkk dégloo ba xam loolu noonu mamaa adama bi dina ko faral uh, di jëf di ko jëflanteeg ak nit ñi mm-hmm. ak nit ñi tamit baaxam soo lañ ci jëflanteeg di nañ ci am résultat yi mm-hmm. nga xam ne ko bëgg a déggoo borom këram mm-hmm. yaakaar naa dara nekk war nga bëgg a déggoo borom soxna ngeen nañu lu wax sa waaw ndax des fois dangay labat soxna Euh, seytaane bëgg a dox seen diggante da ngeen di sey juróom benn weer wala un an réeroo bëgg a am mm, tàggoo bëgg a am loolu dama ci yëngu su ma demee ba xool ba xam ne mbir mi nii la fa war a demee euh, seytaane bëgg a dox seen diggante ñii nag am na ñoo xam ne wàllu rawaan la am na ñoo xam ne wàllu rawaan la bu fekkee wàllu rawaan la loolu ci wàllu alxuraan bi laa koy liggéeyee bu fekkee wàllu rawaan moo nar a seen diggante ñaari côté yooyu ak fas bi yëpp lay boole defal la ko. ñaari way dencante waa ñaari way dencante su fekkee rawaan moo dox seen diggante loolu dañ koy dindi dañ koy dindi ba mu set ndax ku ci nekk ak liggéeyam ku ci nekk ak liggéeyam am na ñoo xam ne yomb nañoo liggéeyal yomb nañoo jàpp am na ñoo xam ne yomb ñoo jàpp ñi yombut a jàpp ñaari liggéey ngay def da ngay def ci bu nit ku ñuul ki xam-xam bu ñuul bi. def ci bi nga xam ne alxuraan la ñaar yëpp bu ñu dajee la nga bëgg danga koy am ndax nit ki boo mboo ko jàppul ci côté bi jàpp nga ko ci côté bee dafa am ñu naqare liggéeyal dafa am ñoo xam ne itam benn liggéey rek nga leen di liggéeyal jàpp leen ci kaw fas gi rek ni nga koy fasee di ko xëcc rek bu nangoo danga koy xam démb am na ko ma fasal barki Serigne Fallou Mbacke démb am na ko ma fasal laata may naan attaaya ba pare ndaw si woo na ma ni ma sama jëkkër woo na ma te dañoo tàggoo de mu ne ma sama jëkkër woo na ma nee na nañ daje. dafa bëgg waaw jëkkër ji ci boppam wan ko ginnaaw wan ko ginnaaw may ko baat ma fas ko mu nangu ma ne sama doom fas bi nangu na neex naa jàpp. avant may naan attaay ba pare woo na ma téléphone audio audio la ma defal boo pare di nga déglu audio bi ni ma sama jëkkër woo na ma nee na ma nañu daje ñu waxtaan ñu xool nu ñuy def suñu diggante barke El Hadj Fallou du caaxaan. soo paree di nga déglu audio bi ci lu gaaw mais am na ñoo xam ni da leen di naqaree jàpp waaw ñooñu du ñu am benn liggéey mu mel ni yaa ngi sangat nit ki mu umu nga ne benn sangat nga koy jox mu denc ci yaramam jamais li yàgg ci yaram da koy raxas muy set da nga koy raxas muy set ndànk-ndànk ba nga am li nga bëgg ci moom waaye dafa am ñoo xam ne dañ lay jox benn butéel ni la pare nañ ci yow man du ma genre boobu traitement lay doon da nga koy sangat joxaat ko sangat joxaat ko sangat muy dem di ñëw su fekkee dafa sori nga booleel ko sangat par sangat par sangat bu ci nekk nga wax ko jour ba koy sangoo ak heure ba mu koy sangoo génneel ko ay saraxam ndax euh, euh, ku feebar boo ko day faj faaw nga seetal ko consulter ko ba xam li nekk ci moom nga xam fa nga koy jaar ku nekk ak rawaanam ku nekk ak rawaanam ku nekk dafa am rawaan sa rawaan du sama rawaan du rama du rawaanu kii ku ci nekk ak sa rawaan moo tax ku ci nekk ak saraxam ku ci nekk ak la nga koy liggéeyal du benn liggéey rek ngay liggéeyal benn nit bi déedéet da koy suivre ba nga xam fu mu toll ba nga am li nga bëgg ci moom nga doog ko bàyyi mu dem ak boppam. Mhm. kon euh, xam ne ñooy waykat yi tey. Mhm. nga mhm. a dégg ndax tamit da dëgg la man la ah, <laughs> mama Adama Gueye ndox du bàyyi yoonam. <laughs> damay tudd baaraam de. boo bëgg a jot rek wala nga bëgg ko joindre da ngay def 77 665 97 05. moo fàttaliwaat ko 77 665 97 05 wala nga def expresso bi maanaam 77 yoon. sept cent dix cinquante cinquante huit soixante dix sept cent dix cinquante cinquante huit su ko defee nag nga daal di jëflante moom te ndax cosaan Africa nee naa la lañ nekk Africa toujours seen seen seen site te lii dafa baax ñu ndaw yi ñu di ci gëstu suñuy grand frère yi tam di ci gëstu waaye tamit suñu arrière parents yi di ci gëstu ndax lii mënut a ñàkk ci jamono ndax jamono ni toll waaye jamono ni nekk maa tax la suñu ñëwee ci way dénkante nga wax ci lu leer wax naa ko dañuy ñëw ci ñi nga xam ne dañu bëgg a tukki wala maanaam ñuy wut kii waa hélas dama ci yëngu dama ci yëngu ndax des fois euh, nit rab jàpp ko lu mu yëngatu mu yàqu lu mu dugg mu yàqu mu di ko indil ay yaakaar yu tas yaakaar yu tas yu bëri rab daf koy def yaakaar yu tas yu bëri rab daf koy def yenn saa itam sa yaram tilim nga judd waale yaram bu tilim yaram bu tilim ndax am na loo xam ne mën naa nekk ci sa yaay da lay topp day topp doom day topp doom muy yaram bu tilim loolu itam dañ koy sangat ba mu set defal la ibbeeku su ko defee nga ibbeeku am na mu ñëw ci yow waa su ko defee yow duñ la liggéey duñ la def dara mais li nekk ci sa yaay day aw ci yow day aw ci yow dalay topp dalay topp loolu dafay faral di am ci nit ñi di defar seen yaram sóor ci doom yi des fois dañ lay jox sanga sax ne la boo sangoo sangaaleel sa doom ndax li nekk ci yow day jàpp sa doom te léegi bu fekkee da ngaa dindi sa bos rek bàyyi sa doom sa doom day sànku moo tax des fois booy booy ñaanlu dañ naan la ñaanlul ñaanlul say doom wala sangatul nga sangat say doom waaw su ko defee nag yow mi nga xam ne yaay ut kayit gi bu dëgëree dañ koy xool ci ñaari fànn yëpp buñ ko xoolee bu ñu xamee ne lii dafa am lu ko wundu taxaw na fu lëndëm nit booy seet bu taxawee fu lëndëm nga xam ne kii ay mbiram am na jafe-jafe su ko defee yow dangay xam mais su fekkee dafa am gàllankoor dafay taxaw ci gàllankoor bi ba pare côté yi day ubbeeku su ko defee nga xam ne kii mbiram dafa am gàllankoor waaye dara nekkul ci yaramam gàllankoor boobu nag da koy jéem a faxas dindi ko teg ko fële. soo ko dindee mën mën ko defal nag liggéey boo xam ne lu mu yootu da ciy jot. waaw am na béjjën boo xam ne buñ la ko soxalee su yaram bi setee ñu soxal la ko loo yootu da nga ciy jot day yomb ci yow ci wàllu këyit ci wàllu xaalis. waaw wàllu yoon tam liggéeyam dafa am. wàllu yoon liggéeyam dafa am waaw spécial la waaw spécial la ñiy voyagé ñiy tukki di dem di ñëw waa ak ñiy lijjanti crédit muy të ak ñi bëgg a tukki te seen i mbir sotteegul waaw sotteegul dañ ciy yëngu bu baax waa dama ci yëngu man dama ci yëngu bu baax waaw dama ci yëngu waaw ndono la dëgg la waaw ba faaru mbaam la dañ mbaam la dañ ko daan bind ah. euh, ba sama rakk bu jigéen sax da daan jógee këram dem di ko jàppale ci wàllu mbind mi waaw képp ku daan bëgg a tukki da ngay dem ci moom mu bindal la xaatim bi ci mbub mi jox la ko moom nga jiital moom nga jiitale ci sa biir yére moom nga ci sa biir yére di nga dem ak jàmm dikk ak jàmm waaw di dem ak jàmm dikk ak jàmm te lépp looy lijjanti suñu borom da koy sottal te lépp mi ngi fi sëñ Modou Gueye Ndaam ñëpp a ko xam sëñ Modou Gueye Ndaam ñëpp a ko xam maa topp ci moom maa topp ci moom waa seen la waa ci wàllum liggéey bi waa waaw waaw man su liggéeyal nit mu dëgër damay woote Touba ñu sot ko damay woote Touba ñu liggéeyal ma liñ may liggéeyal boo ma fayee lu ko jar laa wax de ndax euh, dañ na liggéey dafa am yoon soo ma fayee lu ko jar damay woote Touba su ma liggéeyee benn yoon mu dëgër ma liggéey ñaari yoon mu dëgër damay woote Touba ñu sotal ma ko dañ koy sot lépp ci alxuraan <laughs> dongoy yi dongoy la ñuy taaj rek jox leen àlliwo yi ñu daal di koy liggéey ci saasi yónnee ma ko duma ma buuse maître du ma ko buuse ñu yónnee ma ko barki Sëriñ Fàllu Mbàkke da cee gën waaw dompoon sax ci sot la boobu <laughs> <laughs> kon na ba daal Africa Media jotaayu cosaan waa ñi jotaayu teraanga gaañ ñi yi daal di féer. te nag boo dégg lii di nga xam ne nag ay kàddu dëgg rek lañ ci wax. mooy sànq li wax. da am solo. maanaam rawaan dina ko tënk. ba ay su duggee buggalee kii mu yàqu. su defee dara mu yàqu. da koy judduwaale wala da koy forti benn nit wala rawaanu tóorlu lay rab. Mhm. ndax mhm. façon a yàq nit mhm. ndax la xam nga léegi rab dafa sonal nit ñi. Euh, ndax gis nga fiñ daan euh, fi rab yi daan dëkkee. di garab yi àll bi dagg nañ lépp. dañoo gor lépp. léegi rab yi amatuñ fuñ dëkk. Ah. rab yooyu ñooy ànd ak saytaane yi. mooy bëti guddi yi borom bëti guddi yi rab yooyu ñooy ànd ak ñoom moo tax seytaane bu la jàppee boo jógul tuuti dangay dem ndax rab yi dañ leen di may doole amatuñ fu dëkk amatuñ fuñ dëkk am na ñoo xam ne nag dañ koo judduwaale doonnu la wala sa maam di faj rab boo juddoo rab man na laa jàpp sonal la lool day topp sët sëtër ñi ñooñu lay gën a waaw day soob topp sët topp sëtër ñi mooy sët sëtaat yi ñooy gën a sonn moo tax booy faj rab ñu laaj la weexal bul waxaale joxeel ndax kooku day aar boppam aar njabootam pour ëllëg pour ëllëg day aar njabootam pour ëllëg nekkul lu muy lekk lu muy naan sarax la bu muy génne neexale ko rab yi pour ñu bañ a topp njabootam rab dafa am solo dafa am solo rab bu baax bi dafa am rab bu bon bi am ni nit ñu baax ñi amee noonu la nit euh, ñi bon ñi amee noonu la rab bu baax amee rab bu bon am am na rab yoo xam ne dañ lay yokk alal am na rab yoo xam ne lépp lu la nar a def ñoo koy gàllankoor défense lañ am na rab yoo xam ne pour sonal la pour gàllankoor la am na rab yoo xam ne dañ lay feebarloo am na ñoo xam ne dañ lay daanuloo rab dafa bëri façon dafa bari façon dafa bari façon moo tax nit ki bala nga ko bala ngaa dugg ci ay mbiram danga koy xool ba xam kii mooy kan ak noo ko mën a jàppe feebar bu ca consulté amul doo xam fa ngay faj faaw nga consulter ko ba pare mooy seet mooy seet bi hôpital boo fa demee da ngay dañ lay consulter da ngay dagg ticket dix mille francs wala nga dagg ticket cinq mille francs ñu consulter la lu tax léegi ñoom ñu ñu yéenee joxe euh, cinq mille francs hôpital ñu yéenee joxe dix mille francs hôpital consulter leen te pourtant seet bii nii day consulter consultation la tax xoolal ni ñu leen di consulter fii moo gën a leer ni ñu leen di consulter fee waaw gis nga lii mën naa xam li nekk ci yow lépp <laughs> ni li nekk ci yow lépp mën na la koo xam mm-hmm. ba xam li nga xam ne mooy sa mujjug dund mm-hmm. lii mën na la ko wan lii mën na la ko wan te pourtant rajo bi mënu laa wax sa lii ak lii sa mujjug dund nangam ak nangam te lii da la koy wax sa destin lépp lay wax sa destin njaboot dalay tudd ba tudd la sa njaboot waaw njaboot bi nga xam ne yow ba ngay seetlu andiwaale woo ko lii da koy génnee da koy génnee. mais nga xam ne ay soxna la. borom kër kër lañ loolu. ci yëngu. dama ci yëngu par exemple nga xam ne borom kër bi waaw gudd lañ nekk ménopause mm. e daal di koy daal di yomb. ma tax na am yàlla am njaboot. ndax ku ko wax sa njaboot mooy la. dëgg la ma dëgg la loolu itam eh, eh, man nit ki mën na dëju. waaw mën nañ ko dëj ndax fu la nit bëggee nit bañ na la fa. loolu lu bëri li ci ëpp lépp dëj la waaw ndax nit mën ngaa bëgganteeg moom mu bàyyi la xel yow bëgguloo ko bu ko defee danaan kii comme jëriñoo ko keneen du ko jariñoo mu dëj la mën na la dëj yenn yitam rab mën na ko def rab mën na ko def su ko defee ñu naan kii dafa lamb fekk lambul benn jigéen lambul benn jigéen lambul loolu yi su ko defee dañ lay daal di jox sangat jox la gàllaaj incha allahu rabbi da ngay jar tilimul baa ngi fi tilimul bi dafa am aaya boo xam ne tilimul la tudd waaw doo ko sangoo danga koy takk waaw danga koy takk koy takk koy takk koy takk waaw danga koy takk waaw tilimul la tudd waaw danga koy takk incha allahu rabbi bu ko defee boo ànd bu booleeg sang bi ñu sangal la sa yaram jox la tilimul bi nga takk bu soobee yàlla dangay ngay jar koy wax. Eh, eh, eh. ndax sañ-sañ nga koy waxee. Mhm. wala maanaam mën-mën nga koy waxee. Mhm. wala fit nga koy waxee. Mhm. ndax ndax xam nga damay faral di la wax yow yaay bi surtout nga si rek si biir. ah bu fekkee damaa ne. ma daal lakk ci jàmm. <laughs> xam nga ñoom fi daleen bi ñoom. dëgg la waaye nag damay laaj. moo tax may torox ndox. dëgg la fit koy waxee mm. wala maanaam sañ-sañ koy waxee mm. koy waxee wala xam-xam bi moo fi nekk bi moo fi nekk ndax man ba tey moo fi nekk waaw xam-xam bi moo fi nekk mm. lépp dañ koy liggéey ci biir kër gi lépp dañ koy liggéey fii loo ci soxla woon ñu toog léegi liggéeyal la ko léegi nga génn ak moom barki Sëriñ Fallou bu dëgëree ñu sot ko. wa ñëppay sot <laughs> sama mag ju baax ji Guèye Nioro Guèye Massiré Issa Dieye maa ngi koy nuyu Guèye euh, maa ngi koy nuyu di ko ziyaar waaw Guèye di ko ziyaar di ko ñaanal màggal gi mu génn yàlla na koy teewee at yu bare bare bare bare bare bare bare waa Baraba Terrasse yëpp maa ngi leen di nuyu Guèye Nioro waa Guèye Nioro maa ngi lay nuyu waaw waa waa Touba yëpp maa ngi leen di nuyu waaw ah, moom ma déggee dina xam ne moom laay nuyu bëgguma tudd turam ndax kilifa aha aha daf ma jàppale ci sama liggéey lool génjooro Ndioro daf ma jàppale ci sama liggéey dafa nekk sama wéeruwaay nekk sama xarit ne ma ndagam maa ngi dund lépp loo sumb bu dëgëree woo ma barki Sëriñ Fàllu moo tax tiitu ma ragaluma hélas tiitu ma ragaluma <laughs> te lépp lu mu ñaan yàlla nangu borom taalibe yi waaye jotaay yi nag nga xam ne jotaay la boo xam ne mhm. maanaam képp ku bëgg lu baax rek war nga ko mën a bëgg mhm. ndax li nga wax léegi thérapeutique la mhm. consultation la waaye fajtal tamit si dajee am ba tax na yaay booy si liggéey ci ñi nga xam ne dañoo bëgg borom ñi ko ñi nga xam ne tamit aussi am na ñoo xam ne maanaam du ñu sax kenn. Mm-hmm. te teew dañuy ñëw ci wàllu maanaam suñu biis. Mm-hmm. doon artiste. Mm-hmm. maanaam ñàkk bàyyi la loolu. wala nga doon loo xam ne dañ ciy war a siiw. nga doon dundale. wala nga doon loo xam ne maanaam ci suñu biis bi day nekk nit ñi dañ ci war a xam. mais yow am nga talent mën nga li nga mën. mais pour nit ñi xam la day jafe loolu day mel ni suñu kaar ak yow. da ngay loolu. waaw waaw loolu dañuy taal borom mu tàkk rek. Mm-hmm. dañuy taal borom mu tàkk rek moom nee naa la liggéey bu nekk ak la mu laaj mm-hmm. dañuy taal borom mu tàkk ay sangat rek lañ lay jox ak looy naan dangay ngay saf ñëpp da ngay saf ñëpp da ngay saf ñëpp hélas liggéey bu nekk dafa am lu ko tax a jóg tey jii su fekkoon ne yow da yor xaalis loo yor mu dem dama lay bindal loo xam ne danga koy xooj benn yoon nga koy raxase say loxo li ci des nga këpp ko ak ndox mu nu mu toll boo xoojee raxasal sa benn yoon sa loxo loo amati mu des ci sa loxo ci xam ne nag moo di euh, jaaru mhm. jaaru loolu muy demee ci mhm. waaw jaaro bi dama koy liggéey man li may liggéey rek laay takk mi ngi nii man li may liggéey rek laay takk man du ma takk loo xam ne du ma ko liggéey li may liggéey rek laay takk te jaaro bi bu la xaalis tawee ngay lijjanti mu dëgër ci pour wàllu xaalis takkal jaaro bi day ànd ak sangat day ànd ak ndomba sangat bi mooy raxas yaram bi ndomba bi da lay ibbi jaaro bi da lay ibbi man bañ naa ko ba dama ci defar lu bare bare garde ko garde ko ndax euh, sangat boobu dafa am solo lañ koy def at ba at lañ koy bind at ba at lañ koy bind dama ci préféré def lu bare balaa at bee dellu si waat stock lay doon dafa am jour buñ koy liggéey am jour buñ ko dul liggéey at mun koy liggéey ak at ko dul liggéey at ba at comme lañ koy liggéey dama ciy daal di defar lu bare bare te ko benn place loolu moom mi ngi fi heure bu ko soxlaa bu nu juboo ci kaw yi kàddu ma daal di koy baaxe ndax danga ciy gis ndam yokkute lay doon. yokkute lay doon waaw. maanaam yokkute lay doon. yokkute lay doon. maa mhm. yaram maanaam mhm. mhm. doo ko tal dëgg la doo yaram surtout maa góor ñi. góor ñi léegi euh, wéra di daf leen a xaw a yomb lool. surtout télé bi. muy wàllu puissance. loolu dama ci dama ci yëngu bu baax dama ci yëngu bu baax wàllu puissance bi ak ndoxu cité bi ñooy ànd ñoom moom laay jox góor ñi même jigéen ñi tam dañuy am ci wàllu ndoxu siti bi waaye itam dañuy am ci wàllu jigéen ñi ndax wàllu hémorroïde dafa sonal tam jigéen ñi sonal góor ñi ndax hémorroïde ñu bëri jurum doom ñoo moo leen koy teg njurum doom njurum doom moo leen koy teg hémorroïde ñu bëri njurum doom moo leen koy teg ndax jéggal ma ci kàddu yi des fois ngay am doom sonn puus ñu lay puus loo noonu day génnee sa ginnaaw am na ñoo xam ne seen bos day génn léegi nag boo fajubul normal daf lay indil coono ëllëg daf lay indil problème loolu mooy dem nag ba indil la ay seere seere yooyu ngay seere moo lay indil hémorroïde moo tax dama ciy yëngu ci wàllu jigéen ñi wàllu ndoxu siti bi dama ciy yëngu traitement yépp traitement laa la koy defal yëpp traitement laa la koy defal ndax nit boo koy faj da koy faj complet bul faj li bàyyi lii ci wàllu yaramam am na ñoo xam ne dañ naan ndoxum siti am na ñoo xam ne kurabët ak ndoxu siti bokkul am na ñoo xam ne itam kurabët la ñuy am waaw moom mooy xar di sotti ndox day xar di sotti ndox mu ñuul kukk loolu kurabët la loolu dama lay jox loo xam da nga koy baxal di ko naan di ci sangu ma ne la boo ko commencé ci jour bi nga tàggook si moom nga tàggook moom waaw ak wàllu euh, euh, euh, kii nu mu tuddati wàllu leex xale jigéen ñi di gis perte place bi ak jeeg ju ndaw ji dafa sonal xale jigéen ñi sonal jeeg ju ndaw ji des fois da ngay gis kuy tegle la tubay def tampon sonn ba bëgg dee bu la jegee xet bu xasaw moo lay xeeñ dama koy faj ci une semaine une semaine doo ko jënd ordonnance doo ko jënd dara une semaine laa koy faj nga tàggoog moom ak jéeg ju ndaw ji waaw waaw des fois day génn bay xeeñ comme comme nit danga faa jigéen man xetam dama ko xam damay dend jigéen xet gi di ma xeeñ ma xam ne kii hémorroïde da ko sonal waaw perte balance da ko sonal ndax dafay xeeñ nañ ma baal damaa juum perte balance dafay xasaw bu la sonalee ba sonal la day xeeñ comme dëkk lay xeeñ

ku bëgg a jokkoo moom rek day joindre au 77 665 97 05 77 665 97 05 wala nga def 70 710 50 58 70 710 50 50 su ko defee rek euh, di nga jot euh, ñi nga xam ne ñoo di ay assistant wala nga jot ko en direct ndaxte nee na ma man saa su nekk rek man doomu aadama bi moo gën a nit ñi te muy nag wax ju am valeur wax ju am maanaam parce que nit yi nit rek la war a gën a. Mhm. loolu am. parce mhm, mhm. que suñ jógee loolu yàgg dañuy ñëw nag ci yàlla. xam nga am na seen xàll. dañuy ñëw ci yàlla ndax Sénégal nga ci nekk da nga am sa nag moo aad yi. ah dinaa la ci xaw a laaj rek ci diggante. ah way politique yi. ah gis nga diggante Sonko Macky Sall. ah diggante balu fi amoon. Macky Sall Sonko. ah waaye nee nga ma mosoon nga ci wax. ci diggante Macky Sall nga xam ne nag boo bokk jabootee. dëgg la. waaw euh, dama ni woon euh, nañu génne sarax yi bu dul loolu bakkan yi dinañu wadd deret dina tuuru te ni ma ko waxee woon noonu la amee vidéo baa ngi fii ma denc euh, génne woon naa ci ay sarax waaye yàlla def na ci ndox mu sedd guy ba ma génnee sarax yi mhm. ba ko nit ñi defee ay benn benn yàlla def na daal sarax yi suñu borom da cee teg loxo bu baax a baax ci la wax ji fay ci la jàmm am mhm. man mi sax génne naa sarax sama kër waaw génne naa woo sama famille ku mën a génne génne def suñu groupe euh, whatsapp euh, yónnee ko fa képp ku mën a génne génne ku ci nekk man la ka nga dendal euh, wan ko vidéo bi mu tas ko nañ tas vidéo yi waaw tas leen vidéo yi ndax ñu génne sarax ndax lu dul jàmm jàmm ko gën te ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal. Mhm. Mhm. waaw waaw waaw am na lu ma waxoon taala boobu yàgg na te taala mi dégg maa ngi koy nuyu ba ma naan ko Macky Sall day posé waat candidat troisième mandat euh, mu ne ma lu tax ma ne ko daf koy posé waat gisuma Macky Sall mosuñoo gisee xaw ma ku ko xam kuy toog ak moom waaye man la ma gis man moom laa wax te day posé candidat day posé candidat 2024 soreetul te da koy posé waaye nag dina métti dina métti deret dina bëri bakkan dina wadd li ma la wax dara du ko dindi na nga ci bàyyi sa xel ndax loolo ba ma koy wax kenn waxagu ko ma la bu loola ba ma koy wax kenn waxagu ko. kenn waxagu ba ma koy wax kenn waxagu ko. laaj ko taala. amul lu ko ah, du jaas de. du jaas waaw. mbaboor mi moom topp na sonko moom. topp waaw mbaboor mi moom topp na sonko. sonko waaw sonko ah, xew na waaye ay mbiram dafa lëndëm tuuti. waaw dafa lëndëm tuuti. waaw dafa lëndëm tuuti. waaw ndax coow da koo topp. waaw coow da koo topp. waaw waaw topp na ko mm. euh, laata aji saar sax am na lu ko toppoon ci suuf laata aji saar am na lu ko toppoon ci suuf lu yéeme aji saar day doog a feeñ mais am na lu ko toppoon du ma wax lu ma xamul waaw du ma wax lu ma xamul waaw waaw foofu daal dama koy kulus waaw waaw ba beneen jamono mhm. yaa na dañ leer na. waaw waaw waaw di leen jaajëfal ah di jaajëfal askanu Sénégal yëpp nag ah, di jaajëfal itam waa Touba eh, màggal gi ñu jógee ah, sonn nañ di ziar sëñ Muntaxa di ziar waa kër Sëriñ Fàllu waa kër yi maa ngi ziar di ziar seex yu ndaw yi di ziar seex yu mag yi ñëpp daal maa ngi leen di ziar képp koo xam ne rek sonnoon nga ci màggal gi yàlla na la sëriñ fallu ak sëriñ Touba fayal boppam moom mi nga xam ne moom moom bësam bi muy sëriñ fallu ak sëriñ Touba. waaw maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jaajëfal di ñaan jaan di ñaan jàmm daal ci réew mi jàmm daal laay ñaan ci réew mi yal nañu yàlla defal jàmm defal ko àdduna bi yëpp defal ko àdduna bi yëpp yal na yàlla def jàmm ci Sénégal ngeen jëf di leen ñaanal jàmm yéen itam. ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bismil